kontaan bu baax a baax a baax parce que ñëpp teew boo ñaa kontaan na de waaye sama confrère lutteur yi teew loolu moo ñu gën a bégloo ko parce que ñun ñëpp ay frère lañu waa jii nag pour ma jox leen ku nekk sa wàccuwaay dama leen di nuyu di nuyu suñu mag suñu lépp suñu doyen suñu grand Pikine suñu royukaay suñu lépp muy Eumeu Sène le grand champion maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax kon li ma ko wax sant rek ma ne ko mujj woo ko suñu mu réer ñu ngi lay sant di la bu baax. merci. di nuyu suñu nga xam ne moom la Seck le mm. di ko nuyu bu ñëw teewal fi Modou bu ñëwee Modou la ñëw bu ñëwee Franc mi ngi ci jaar bu baax di ko soog maa ngi koy nuyu le grand champion de Tarkinda Siteu moom frère bi ñu lay gërëm bu baax a baax a baax di sa bopp suñu ko suñu doom la. Moustapha Mbër mbëru xale yi mbër bu sox xarala bi moo koy béy bu baax a baax di nuyu di nuyu sox suñu frère suñu doomu nañ suñu lépp di nuyu tag mbër yi nga xam ne ñëwuñu Je que am na loo Je ne pas ma leeroo ko sama pas amul mbër bu mu pas ku ci nekk man pas Niang par rapport ak pas bi di nga ma pas jot naa sama téléphone pas tous les grands champions pas waaye dëkk bi dafa pas soxla yu bari am pas ñoo xam ne seen xel a ngi Je te waaye ñëwul waaye Je xel a ngi fii mais ñii bu ñu ñëwee rek ñëpp ñëw nañu donc rafet na ñu ngi gërëm ñëpp ñuy ñëpp ñuy suñu papa yi nga xam ñoo nekk suñu ginnaaw mm. ancien gouloir yi ñoom ñu bëgg làmb ñoom ñoo tax ñu leen nuyu bu ñu limee dañuy kii mais ñun ñëpp jël nañu nuyoo bi def ko suñu papa Maxime Margal dox ko papa Mansour Diop mu doxal ko ñëpp ñëpp ñëpp incha allah waaw di nuyu ñëpp di nuyu Lac de Guiers gis naa ne père Rone moo ko teewal mi ngi na leen ñu koy nuyu bu baax a baax loolu ñu koy nuyu bu baax waaw gars yi li ñu waxtaan fii bu ñu tëgg ko dafay yomb situation bi ñu yëpp ñoo ko dafa am loo xam ne dañ koy teel a wax mooy dañoo nekk situation boo xamante ni contexte bi ñu nekk mooy contexte coronavirus moom amul kenn kuy naataab ni feebar bi mi ngi feebar bi existé na te ñun mbëri dañ ko nangu bu baax a baax xam ne feebar bi existé na te feebar bi bu ñu mucc yi ñëpp xam nañ ko dañuy takk suñu masque dañuy respecté dañuy utiliser les gels antiseptiques te loolu ñu ngi chaque jour loolu moom nataawul na ko pour état bi mu xam ne ñun les lutteurs dañoo nangu ne feebar bi existé la te ñu ngi wax suñu nit bokk nañ ci ñu mbëri ñu njëkk a ay match waxuma la balaa ñuy dajale nit dajale di ànd ak kii ak Matar Bale ñu defar ay match ku ne mbër def ci logo di ko jox safar si club yi loolu gis ngeen ko mu ngeen ko seede su te gis naa ko ay matcham rek noonu man noonu ëmma keneen Papa Sow ku nekk donc ñun xam nañu feebar bi existé mu ngi ci dëkk bi mais dafa am loo xamante ni dama ko yàgg wax mbër yi ma benn instant lu ñu xaj tuuti mooy suñu adversité dañ ko commencé di ko boole suñu intérêt collectif ñu ñuy toog fi ñëpp teewul bu ñuy jeexee rek bu avancé taxawee dañuy bëri dañuy xeex parce que loolu mooy suñu métier waaye nag bu ñu demee ba war a défendre suñu intérêt collectif dañoo war a booloo bokk ndey ak bàyyi ko défendre suñu intérêt. bu ñu buggee fii yëpp ku nekk da ngay ñibbi sa nga ñëw nekk say entraînement ak say sal bu ñu waree bëri ñu bëri xeer parce que moom suñu métier mais bu waree taxaw ñu defaan suñu bu ñu ñëpp dañoo war a teew gis nañ làmb ji ngir ngeen du mu demee ba mu tëjee yàgg na comme ni ma ko waxee dix mois ma ngi nii bu ñu xoolee yéen presse yi ak yeneen ak yeneen yéen ñëpp a ngi liggéey ñu ñoo liggéey ñu bëri ba pare nag ñu gore kenn dégguñu ñu ngi jàpp suñu ñaamur kenn xamuñu ba xam suñu dépense manqué na kenn xamul ñu ngi jàpp suñu ñàmbur te dañoo dajale suñu fond muy fond Covid bi ëmb bi nii mën na ma seet ñu ànd ak Gris Bordeaux mm-hmm. ñu yóbbu ko ànd ak Matar Ba mm-hmm. ñu yóbbu ko ministre de la santé jox ko somme bu bari mm-hmm. te boobu ba léegi ñu ñëpp ay impacté lañu ku xam ne amul kenn ku gën a impacté ci Sénégal que Mbëri jël benn avance di xaar 10 mois pour bëri mais dañoo am suñu fula suñu fàtte suñu personnalité toog jàpp suñu ñàmbur loolu rek dafa war a tax lépp lu ñu war a def rek. koy bàyyi mun ngaa bàyyi ku nekk mu bëri mu def dugub métier mais nga gëstu làmb parce que mbër yi dañoo ànd ak koor ànd ak fulaat ak fayda jàpp seen jàmbur te loolu wala rafetlu la gis na situation bi mu mel fi mu toll lu mooy comme ni mu ko waxee rek ñu proposé ay protocole sanitaire parce que bëri moom moom la ñuy ñaan te état bi mi ñuy dégg te ñun bëri yëpp suñu métier la ñoom ñu ngi liggéey keneen mi ngi liggéey ñun na dañoo am fulaat fayda boo xamante ni génn ñu sànni ay génnewul offense la état. génnewul ñu marche dañoo jàpp suñu ñaamul mais bu wax jotee boo gisee ba gën a organisé nii nee naa leen ku ne mën nga toog fu ñu wax mais lu am solo mooy ñu ñëpp dañuy toog ñu wax kàddu nekkul booñaa moo yor kàddu parce que booñaa moo gën a tuur ci gars yi toog mais dañoo war a wax ñun ñëpp pour gars yi dégguñu offensé wul kenn nag mais làmb ji fi mu toll nii ay proposition rek moo def mm-hmm. mooy làmb ji ñu indi ko ñu ñu bëri. loolu nag forcé wuñ ko mais état le président Macky Sall ñu koy remercier de passage parce que ñun duñ fàtte démb dañoo tabaxal arène nationale plus de 32 milliards investir ko pour def loolu lu ñu wax ne faalewul la waaye bëgg nañu beaucoup plus de considération état jox ñu ko parce que ñu mbëri élection yi ñu ngi fi président dëkk bu mu dem nag bu demee passé dina suñ jaar ci tur Modou Lo Papa Sow keneen ak keneen bu ñëwee Pikine yéen ne Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang keneen ak keneen parce que loolu yëpp ci marketing am la bokk ci élection am la bokk mais ñooñu nag après bu yëpp jeexee rek leen delloo lañu moom li ñu moom mooy ñu ñaan ko mooy ay mbër lañu làmb mooy suñu métier waxuma la ñun ñuy toog fii parce que sant yàlla ñun ñuy toog fii yëpp ci fee di nga am dépense di ngi sant yàlla mais dafa am suñuy rak ak rakkaat yu nekk si suuf yoo xamante ay mbër soixante la ñu ay mbër cent francs ñooñu dafa métti ci ñoom trop te ñun ñi waruñu nangu mu mu ñu mujjee puso bi mu réer si ñun kon suñu rakk yi dañuy jàpp donc ñu dañuy wax pour suñu bopp mais dañuy wax pour suñu ay rakk yu war a bëre te loolu moo jaarul ñoom ñëpp dañoo war a ibbi làmb ñu ñu bëre ibbi làmb ñu bëre nag waxuñu ko parce que xam nañ feebar mi ngi fi mais ñu respecté ci change ci stade bi mën nañ def proposition boo xam ne stade bi gis nañ arène nationale lu mu yàggee séer bu ñu toog beneen séer bi ñu tëb ko beneen séer bi ñu toog organiser ko ñun bëri ay responsable la supporteru làmb dañoo bëgg làmb te xam nañu làmb lu muy apporté te ñoom tamit ay responsable la noonu la demee noonu la demee te loolu am solo la donc ñu teg ay proposition daan ne ah ñun kat bëgg na leen ubbi làmb mais lii ngeen di def da ngeen di bëri ci wii koro wala da ngeen di bëri bëri boo xamante ni séer yi bu ñu ci toogee beneen dañ koy tëb seen i supporters ngeen wax ak ñoom ñu respecté wala mbër bu ne may nañ la tant de supporters boo xam ne maximum moom ngay dugal lu bëree. parce que nit tamit li nga xam ne mooy gàllankoor mënoo ko xaaj téye ko bientôt un an dafa am na loo xamante ni boo ngeen bàyyi ko am na suñuy rakk yu bari yoo xamante ni ñu wax ko ñu wax ko wax mbër yëpp ngeen nii am na suñuy rakk yoo xam ne dañuy def ci géej gi te ay mbër lañu woon man bari na ci ñoo xamante ni. bari na ñoo xamante ni suma ay frère ñoo xam ne ay rak dañ may woo mbër yoo kii ñu bari maa ngi ciy génne ma leen gànnaar lu jot yomb jarul yàqal dëgg la affaire yi métti na mais nag jëm naa ko dina baax donc parce que loolu perte espoir moo tax ñuy dem ci ndox mi waaye ñuy jaar képp koo xam ne ñàkk na bakkanam ci ndox mi ak képp ku jabar bu ñàkk bakkanam ci ndox mi mais di leen wax ne situation làmb moo tax yooyu yëpp am làmb gaan bu ñu nekkee di bëri mbëri di bëri Sénégal bi fekk làmb di ne loolu dégg situation yooyu booy même bu amul dara sax dañuy dem dund làmb seraan bu bëgg bu pare dañuy dem tëddi nelaw luy lekk baax na parce que gis nañ benn Papa Sow bëggal na leen gis nañ benn Siteu mu bëggal leen après lu ñu am baax na dañuy dem tëddi mais booy bu ñu gisee amuñu dara ba pare fi ñu doon boolee dem dindi fa seen stress yow tëj nga ko après booy duñu xam fu ñu jëm quoi dafa métti côté boobu ñu bàyyi ci xel parce que suñuy rakk yu bëri ñu ngi dee ci géej gi te loolu dafa métti ñu ngi masawu ñëpp nag loolu laa bëgg état bi mu bàyyi ci xel mu xam ne ñun mbër yëpp ñu ngi dee taxaw benn problème lañ def ñu ñëw ñu ñëwul parce que am na ñoo xam ñëwuñu si yoon bi léegi ñu ngi ma woo mbër bu naa ci lii laa nekk ñu nekk kenn du ma limee sax may jub jarul may ku nekk ne mbër ci lii nekk mais maa ngi sa pour ak yéen donc ñu bokk nday bokk baay gis nañ mbër yu ndaw yi sotti yi ñu def bari naa gis ngeen ko mbër yu ndaw yi dafay sotti ne non suñu grand yi buñ seetaan suñu grand loolu dëgg la mais nag ma wax leen ma lancé leen appel bi neen seen grand yi bu fi yoon def ginnaaw parce que xeex bi ñu ñoo ko bokk waa état bi nag di wax ne Modou forcé wuñ kenn waaw xëccuñu loxo kenn wejuñu kenn génnuñu taal ko defuñu dara te nag mbëri bi war a bàyyi xel na te bu ñu neexoon ñu xool ci population bi def loolu parce que ku ñu nekk fii milliers de personnes yu ñu sa ginnaaw kenn ku toog ku ne rek milliers de personnes yu ñu sa ginnaaw bu ñu génnoon yëngal day demee neneen mais duñ def loolu parce que ay responsable la mais lu ñu def mooy dañuy toog wax ak état bi ñaan ne ko nag par rapport ak Bira Sène bi nga xam te ne mooy président du CNG di ko nuyu de passage mu wut ay protocole sanitaire déposé ko au niveau de l' état ñu xool nu mbër yi bëree ñu defal leen affaire gars yi respecté seen max nga leen bët bu nekk au moins di nga dugal tant de yi bëree parce que dafa métti loolu laa amoon lu may wax di ko wax état bi ku ci nekk ñu toog fii ñëpp mënuñoo jël parole bi am na yoo xamante ne ay tët yoo xamante ne sama kàddu nu mu amee solo ñoom seen kàddu noonu la amee solo buñ paree ku nekk dina la jox ba sànni sa kàddu mais di leen wax ne nag man Boy Niang maa ngi wax état bi ñun mbër yëpp mu ngi dajaloo xeexuñu xulóowuñu nag.

merci su fekk population bi nekk situation bi nekk ñu ñëw gën a xam ñu bëri parce que mbooloo mooy topp suñu ginnaaw Papa Sow war a boo ñaaw war a góor sax day dundal këram mais day dundal yeneen kër parce que yàlla moo ñu tuddee moo ñu moo ñu dégg loolu kon xam ne situation bi damay gis nag état bi parfois mu dimbali mu dimbali les personnes culturelles wala mu jox leen ay subvention mais làmb dama gis ñu boole ko pourtant làmb culture la mun a wax culture génn ci làmb ñun culture boo génnee suñu métier rek. amatul solo li ñu def kon leneen lay doon te leneen loolu MMA ñu koy def ñeneen ñu koy def mais ñun boo gisee ñu am sport boo xam ne ñoo ko moom muy sport de chez nous moom moom ko muy ñu xam ne bokk ko kenn parce que dafa am culture parce que gars yi dañuy takk galaaj bi gars yi dañuy yor ñàkk yi toj ko gars yi dañuy tuus gars yi dañuy dox ay sàmm yëngal ay sàmm yi parce que loolu moo tax gars yi bëgg ko ëmb day wàcc ci tànk yi day njuug commencé noonu da koy yëngal dëgg la kon kon loolu moo tax

mais xam ngeen ne ñu ak yéen waaw xam ngeen ne ñu ak yéen ñoo bokk mbir mi xam ngeen ne ñu ak yéen ñoo bokk mbir mi ñun dañoo bëgg place bi te yéen tamit da ngeen ñoo bëgg def dara tawowu ñu ne yéen xam ngeen loolu waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di nuyu Pape Thialis gis nga damaa nekk ci contrat waaye moom moom ma yombalal lii comprendre nga di leen wax pour pour nu ma tollalee mbëri rek di leen wax benn information tafaati ci boppam sama adversaire jël naa sama numéro woowu parce que ñu ñëpp ko ko ba ma ko woowee dama wax ak moom yëgal ko mooy nag mu teewul bu ñu paree dañ fekk mooy loolu day métti de waaw parce que noonu la demee parce que affaire bi doo ko nekk loolu ñun esprit boobu ñu bëri jantal mais boobu la ñu war a tawee waaw bu ñu waree def dara gars yi dañuy tayale ñu tóor ko mu daanu bu ñu waree xeex gars yi damay jël avance Siteu wala mooy avance Papa Sow dañuy xeex dañuy bëre parce que loolu suñu métti la waaw loolu esprit jantal mais boobu la ñu war a demee parce que américain loolu la ñu demee dañuy toog ni reer bu guddee ñu def xeexee waaw loolu moo affaire jantal mais waaw bu jeexee jaral comme ni ma koy waxee